waaw li fi indi ñëpp moo ma fi indi rek xam nga ñëw unigré si stade bi anteeg Sénégal yëpp ah, di ci félicité yooyu ak président ah. ànd ak suma tons Elas Thioune papa ak yunus comme tout le monde ah. la quoi na wax dëgg yàlla naaj na quoi xam nga rafet na mel na ni mu war a mel macha allah daal comme stade yi ci monde bi yëpp ah. waaw loolu loolu moom kuy sportif da nga koy ñaawlu xam nga saaru bis yu mel nii bu ñu ko amee nañ ko respecté sàmm ko xam nga def nañ ci li ñu def le reste mooy sportif yi ñoo ko moom xam nga nañu xam li ñu leen defal lan la xam nga ñu respecté ko quoi pour man loolu la quoi. non man comme li may wax rek euh, tey dama ñëwoon fii suuf pour ñëw ci affaire xam nga comme sénégal ah ñëw seet si stade bi ni mu naay see affaire yooyu mais affaire wu combat moom tey waaye bien sûr yeah. xam nga lamb moom lamb la rek ñun ba ñu tollu ñoog suñuy grand dañ leen a tàllal loxo ñu may ñu loolu moom xam nga euh, maa ngi leen di félicité di félicité euh, Reug Reug di encouragé guy gi te xam ne xam nga la bo man nag xam nga man pour mbër yëpp laa fi neex la ah. man moom néew ma fi di taamu adversaire kii la wala kële non may ngi ne maa ngi xaar combat ennemi ku ñëw rek mooy loolu quoi. mooy li ma lay wax man làmb ji maa fi ëpp ay adversaire loolu moom dafa leer quoi loolu moom leer na Sénégal yëpp waaw te xam nga pare naa pour bëre ak mbër yëpp daal. merci.